seraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekkaat fa combat Tapha Tine ak Boy Niang na ku ca perte ba du waa Leewtoo du Tapha Tine du Boy Niang 2 waaye Lac la Lac de ne dana maye revanche ngir jaar fa a mu xalaataat revanche am digganteem ak Boy Niang 2 jàppoon ne foofee it mën na la Boy Niang di contesté mujje ba combat Tapha Tine ak Boy Niang 2 mujjee taxaw loolee moo waral sunu làmb xëy ne Tapha Boy Niang 2 ficelé Lac de Guiers grand perdant

bu nar metti la ci Boy Niang 2 bu dee TV ne Boy dafa def un mauvais choix Boy fa mu dal baaxut la mu tànn baaxul Boy Niang kan moo ko xelal tafaatin waaye nekkutoon yoon wa Mamadou Dieng ca tonn ne ko Boy kat dafa amutoon beneen bu pexe li olof di wax naan yaa fi sës taxafalu loolee moo dal Boy Niang 2 fi sës moo tax mu jël ko bu amoon beneen possibilité dina fi ne ñukk tafaatin dem seeti leneen El Khayri Aïdara bu bu mu jaar gannaaw xamle dafa wuteeg la gaay xamle moom dafa jàpp ne soit bu baax la ci Boy Niang bu jëlee tafaatin yoonu làmbam la la mu wone ca digganteem ak Lac de Guiers tax na mu war a bépp mbër bu nekk ci làmb ji gannaaw ba ñu defee sondage ba amateur yi wax seen xalaat ba noppi journal ba dafa dellu siwaat ne Boy bu nekkee en danger yi tafaatin mu ngi en danger ndax après son échec face à Ama Baldé tafaatin du nangu la ko daloon dalaat ko tafaatin ba booy ñaa fee jaar bu fi jaaree gone yi danañ ko yab danañ ko ñeme ndax bi la muy dina taxawam déet saa yu ñu xëyee sens yi di gën di wàññeeku saa yu ñu xëyee négociation yi di gën di jafe saa yu ñu xëyee combat di gën di jafe waa GFM jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci itu yéene gaay yi allah